mbokk yi ñu ngi dellu di leen nuyu yéen sunu ay internet rawatina internetu inforémi point com di leen dalalaat jàmm amaat mbégte lool jàkkaarloo ak yéen ni ñu koy defee saa su ne ci seen émission gindeeku ba tey nag ñu ñëwaat tey rek fii ci Mariste Forbé jàkkaarloog rek fi nga xamante ne moom mooy pont wu Hann bi ñëw seesi rek ki nga xamante ne moom dootuñu leen ko présenté sax muy ki ñuy wax rek Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sarr balaa ñoo dugg ci waxtaan bi rek gannaaw ba ma ko nuyoo ba pare ma bàyyi ko mu nuyoon teeg internetu info rewmi point com waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokki julli ñi mbokki àdduna mbokki internet yi ñu leen nuyu di leen ziyaara di leen bala di ñaan ci mbaaxu yàlla yàlla yàlla boole ñu jéggal ci barke yonent bi salallahu alayhi wasalam ci barke weer wu tedd bi nga xam ne moom mooy weeru rajab di ñaan lépp lu luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Fatima ñu ngi lay dalal jàmm ci kër gi tabaarakallahu di ñaan ci mbaaxu yàlla waxtaan bi lépp lu fi jib te muy njëriñ yàlla na yàlla def ko mu nekk loo xam ne lu ñuy dégg la te buñ ko déggee yàlla mooy ñu tawféex ñu mën ko topp ci barke bi sallallahu alayhi wa Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sarr tey euh, li warala suñu tànk tey rek comme ni ñu koy waxee saa su ne comme gindeeku moom dafa nekk émission boo xamante ne dañ ciy waxtaanee lépp loo xamante ne rek dafa laal askan wi ak tamit mën a jariñ doomu aadama yi loolu daal di waral rek ñu daal di euh, ñëwaat seet si la fas yéene waxtaanee tey nag euh, li nga xamante ne moom mooy tas yu bëri maanaam divorce. divorce yu bëri yi nga xamante ne dañ koy nemmeeku rawatina jamono ji ci société bi ma lay laaj rek yow ci sa xalaat lan moo koy waral. waa alhamdulilah euh, soxna Fatima ñu ngi sant yàlla bu baax ndax euh, divorce yu bari yi dafay loo gis lu nekk dafay am cause te suñu borom subhanahu wa taala moom moo daganal sëy ci suñu biir muy góor muy jigéen am na ci as boo xam ne buñ fa tolloo sëy dafa war ci nit ki donte tabaarakallaahu la nga xam ne moom la yittewoo dëgg-dëgg moom mooy tabaarakallaahu sëy li ñuy wax doom kado la ci waaye nag. dafay am ay mbir yoo xam ne dafay taxaw tey ci jamono nga gis sëy yoo xam ne mën nañoo wax ne sëyu mellax la sëy yoo xam ne du taxawaalu daanaka ña jugee ca jàkka ja sax fañ koy fasee bala ñuy yegsi ci kër gi sëy bi mën naa tas bari nag ay cause yu koy waral cause yi nga xam ne moom moo koy waral bari na mooy yàlla bu waxee sëy daf ne lan la ci sàkk sàkku mawaddatan wa rahmatan lii lii déroulé sëy ba sëy avancé moom mooy na na ci na ci mbëggeel am waaye dina ci yërmande am waaye dafa am yoo xam ne bu fekkee ne am na ci biir sëy bi dafay am lu koy lal ba tax sëy bi mën a yegg fa nga xam ne fa la ñëpp yegg mooy dañ ñaan ci sëy bi sëy bi sax waaye sëy bi barkeel te nit bala muy dugg ci sëy war na xool ki mu bëgg a takk kan la léeg-léeg ku góor ki moom mooy am initiative dem xooli diggante bi naka la demee moom ku jigéen ki ak ku góor ki léeg-léeg it ku jigéen ki waaye li ci ëpp góor ñi ñoom ñooy dem seeti ndax soxna si ñu bëgg a takk ndax soxna si gën ci ñoom la wala gënu ci ñoom. ndax dem xool ñu seetal la daal ay listixaar seetal defal la ko defal la ndax yàlla dafa bind nit ñi ci ñeent xeetu tabia bu ci njëkk mooy def yàlla bind na nit ci ci ci ci safara bind na nit ci ndox bind na ci ngelaw bind na nit ci suuf mais euh, tabia yooyu euh, nga xam ne ci lañ ci la yàlla bind doomu adama faaw nit ki xam ban moo ci nosom bu ko xamee nag tabaarakallaahu eh, jigéen ji ko yàlla booleel danañ mën a def ndax boo de eh, am na koo xam ne tey mbiram safara la kooku bu duggee ci soxna boo xam ne mm, mbiram ndox la daf koy fay bu ko fekkoon mu am alal alal ja day wàññeeku bu ko fekkoon mu nekkoon koo xam ne situation bi yëpp baaxoon day day ñëw ci kër gi rek mbir yëpp commencé déréglé wu mu commencé dugg ci ay coono bu dee ci côté soxna si bu fekkee ne soxna si moom naari yi la safara la ku góor ki ñëw nekk maa yu soxna si ci boppam moom mooy nekk ci coono mooy waral nga gis soxna euh, soxna yoo xam ne tabaarakallaahu avant ñuy dugg ci sëy dañoo mel dañoo meloon ni ni leen yàlla bindee ci rafet am taay rafet tabaarakallaahu waaye ñu dugg ci sëy rek commencé ci sentir coono yoo xam ne kenn xamu nu mu toll loolu nag bu buñ ko dee wax xam-xam la xam-xam la boo xam ne yàlla dénk na ko doomu aadama yi loolu lépp dafay indi ay cause de divorce duggee ci eh, duggee ci biir nag biir sëy bi nag nga xam ne xool nga yooyu ba nga xam ne gis nga ki nga war a àndal kan la la ca war a jiitu tabaarakallaahu buñ fasee sëy ba pare mooy ngeen jaar fi leen yàlla sant bu ngeen fa jaaree du ngeen tiit du ngeen ragal waaye ci biir sëy bi saytaane ci boppam moo dul ànd ci lu dagan jaar fi fi leen yàlla sant mën nga ñu ko jaar fi leen yàlla sant mooy ku góor ki dafa am ay sart yoo xam ne moom la ko lislaam sant mooy na dëkkal ki ki ko yàlla dénk na ko dëkkoo ñaareel ba na ko dundal na ko wodd waaye bu fekkee ne dugg nga nag ci biir sëy bi duggoon ci ngir am yaakaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dee leen takk jigéen ci ñeenti mbir da ngeen takk jigéen ngir alalam man ngeen takk jigéen ngir taaram waaye man ngeen takk jigéen ngir askanam waaye mu ne war ngeen man ngeen a takk jigéen ngir diineem yonent bi daal di wax ne faxtar bi zaati diin tànnal borom diine ndax boo diin borom diine boo ko tànnee tabaarakallaahu moo dajale loolu yëpp léegi nag bu fekkee ne yow tànn tànnoon ak borom diine da ngaa tànn borom alal wala nga tànn borom taar wala nga tànn nit ki par intérêt souvent néegu sëy dafa wuuteeg néegu génn ñi nga xam ne dañoo bëggante di génn rek ñooñu mën nañoo bañ a am problème ndax kenn ku nekk bala ñuy gisee sa morom da koy wàcc ba pare lépp luy ayib ci yow da nga koy nëbbu léegi nag bu ñu duggee nag ci sëy bi nag sëy bi ci boppam léeg-léeg. divorce yu bari yi am na lu koy waral wàllu rab ci la bokk te ñu bari léegi dañ koy caaxaane jigéen ñu bari ci dëkk bi léegi dañoo am ay rab dañoo ame rab ame rab buñ ko dee tudd du dof waaye faru rab la jigéen bu ko yàlla bindee ni mu ko bindee bu tolloo ci 18 ans jëm kaw képp ku ko gis moo xam góor la tabaarakallaahu bu dee doomu aadama bu ko gisee rek dana am yëg-yëg ci moom loola tax ñi euh, ci sariya ñi naan la xool jigéen dafa xaraam pour xool jigéen benn benn tali la boo xam ne boo ci jaaree daf lay yóbbu ci soxna si day yóbbu ci nga xemem ko te boo ko xememee faaw nga wut ko boo ko wutee te jaaraw ko fu dagan man ngeen a seq lu loolu tax alxuraan te gàddu fu naan xool jigéen dafa xaram kon fa tabaarakallaahu bu fekkee ne nag euh, jigéen bi toll na foofu lépp lu ko gis daf koy bëgg seytaane bu ko gisee daf koy bëgg rab bu ko gisee rab moom mooy seytaane bu ñuy wax rab dama foofu laaj na leeral nit ñi ñu ci ëpp léegi dañuy jaxase dañ naan rab seytaane déedéet moo ngi mel ni nit ki ak bandi bi nit ki bandi bi kii nit la nit la kii bandi la mais ci biir nit la bokk mooy rab bi nga xam ne intention du lu baax intention du lu baax mooy ñëw nag kooku mën na ñëw nag euh, installé wu ci ndaw si bëgg ko di séq ak moom yow yow nit ki yow borom këram li nga bëgg a ak moom te su boobaa moom it moyens yi mu am pour détruire la moyens yi mu am pour pour gàllankoor la lu mu laaj daf koy def bu laajee mu xañ la doom daf koy def bu laajee mu tàngal kër gi ba mu tàng saa boo génnee kër gi kër gi am jàmm boo dugg see ci kër gi kër gi nekk ci problème bari na kër yu bari ñoo ngi yëngu si yu bari ñoo ngi yëngu rab moo koy def kon nit mën na comme buy dugg ci sëy ni nga ko waxee da ko war a xool mais est kon mën na koo xool ba gisu ci benn gàllankoor dugg tamit lu mel ni rab ñëw gàllankoor. waaw xam nga euh, gis nga bu ñuy xool hôpital dama koy faral di wax analyse rek taxul ñu samp hôpital analise kese taxul ñu samp hôpital bu ñuy samp hôpital pour mu analyse bu analyser gis jàngoro ji man koo man koo faj loola tax ñu samp hôpital léegi nag boo xoolee na ba gis ni kii ndaw si nga dugg nii yàlla def na am na mais am na protection yi nga xam ne mag ñi moom lañ doon def ba tabaarakallaahu ndaw si loolu nga xam ne moo ko moo ko moo moo ànd ak moom mën na ko bañ a teree mu am doom mën na ko it mën na tax mu sauver sëyam. wàllu rab oh. sëy dañ koy sauver. wàllu rab bi nga wax est-ce que mënoo nit mënul dem ba dugg ci biir sëyam. ba nekk ci biir mu dog ko dab wala loolu mënul nekk. waaw danay am danay am waaye nag li gën li li gën a raar ci la bokk. li gën a raar ci la bokk boo gisee gis nga détails yi yi ñu bàyyi léegi moo waral tey problème yu bari bi ci desit loolu wàllu rab cause la ci beneen bi ci desit mooy wàllu doomu aadama nit ki ci boppam dafa am góor ñoo xam ne yàllaa leen nattoo mooy yàllaa leen nattoo mooy boo leen tegaloon fii lu dagan tegal leen fii lu xaraam lu xaraam la ñuy jël bàyyi lu dagan li imagine soxna faatiment nga bàyyi sa nga bàyyi soxna mu mel ni mu war a mel nekk jigéen mat ko lool matle ko sëkk nga sañ gont romb ko fa dem ci foo xam ne tabaarakallaahu jigéen joo xam ne takkuloo ko amaana sax sa soxna moo ko dàq amaana na sa soxna mel melu ko moom mais seytaane mooy fekk lu dagan lu xaraam maanaam seytaane mooy ñëw fekk lu dagan mu ñaawal la ko séexlu loola ko jël lu xaraam fexe ba suukaral la ko moo waral tey tabaarakallaahu moo tax mag ñi am na am na am na luñ daan luñ daan bind boole ko benn xeet suuf suuf bi amul ci amul Sénégal bitim réew lay am suuf boobu mag ñi buñ ko daan def pour lan la pour aar nit ki ci njaaloo tey sëy yu bari moo ngi rëng-rëng la koy rëng-rëngal ña ko séq xam nañ ko. te doxaan boobu tamit dina euh, bokk na ci cause yu divorce yi. doxaan boobu dafa bokk ci cause yi parce que mooy njaaloo mooy fekk euh, romb fi lu dagan dem ci lu xaraam te waxtu woo rombee lu dagan dem ci lu xaraam tabaarakallaahu yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor sa njaboot am na jigéen ñu bari tey fii may wax ak yow dañoo seexlu seen boroom kër ndax xam nañ ne seen boroom kër li muy jëfandikoo suba ba ngoon dara daganu ci te ñaareel danger bi ci gën a nekk moom mooy mën na la indil feebar boo xamut mën na la indil feebar boo xamut kon fa tabaarakallaahu li nga xam ne moom moo ci am solo tey ba tax divorce yi mën a wàññiku moom mooy sëy dañ koy sécuriser sëy dañ koy sécuriser ndax lu jafe la lu jafe la yeneen ti moo xam ne mu jëg jamono dana dikk benn góor góor góoseen mooy dem fukki jigéen a nga topp ci ginnaawam bëgg a jot ci moom mu të kon bu la yàlla mayee borom kër sëy boobu yow ba la ca war moom mooy nga sécuriser ko na koy sécuriser am na ci loo xam ne wàllu zahir la mais am na ci loo xam ne wàllu baatin la te soxna Fatima bari na jigéen dama koy faral di wax bari na jigéen ñu bari jaayu lañ man waaye mënuñ sëy te Sénégal suñu suñu erreur moom mooy ñàkk jàng sëy te sëy dañ koy jàng. est que mën nga ñu décortiquer tuuti rek ci sëy moom nag naka lañ ko war a def. waaw sëy tabaarakallaahu li nga xam ne moom moo ko lal nañ fexe ba loolu di dund bis bu nekk moom mooy mbëggeel mbëggeel gi nga xam ne moom nga ko bëggoon dafa am benn jigéen yàlla dogal mu ñëw ne ma sëñ bi ñaanal ma ma ne ko de mën naa laa ñaanal yàlla ba ngeen di génn yéen ñaar loolu dama bëgg yow nga continuer waat ko commencé waat ko mais imagine koo xam ne saa boo xëyee subateel teel nga envoyé ko am SMS noo fanaane bëccëg nga envoyé ko noo yendoo añ nga ngoon ngi nga envoyé ko ne ko mbaa guddeewoo loolu yëpp keroog bu ngeen nee alxayri keroog nga bàyyi yooyu yëpp daan daf la daan soxla ngeen war a gisante balay 17 heures fekk na nga sangu ba toilette ba toog loolu yëpp defatoo ko ana ana ma waddaga ana raxma ga ana yërmande ga tey sa jëkkër bu xëyee nga xëy bu gontee nga gont bu ngeen wàccee na laaj sonn su boobaa mbëggeel day wàññeeku mbëggeel dafay wàññeeku wàññeeku googu muy wàññeeku nag dafay laaj jigéen ji ci boppam mooy moom mu di ko renouveler mu di ko yee salaat waaye nag bu demee ba xam ne ndax léeg-léeg nga xam ci sa doom ne kii kat am na jur yoo xam ne dañ dem ba xam ne seen doom ji maanaam lii muy def nii ci àll bi du lu du du luy yoon waaye nattoom la bëgg ko bis bu set mu dem tëdd ak jigéen joo xam ne takku ko nattoom la seen doom ji xam nañ ne kat kii waxtu wu nekk du doyloo borom këram nattoom la waaye mag ñi am na lu ñu daan def ci néegu sëy ba yow ku góor ki doo sëy keneen ku dul sa soxna dafay am doo sëy ku dul sa soxna bu ñu lay wax sécuriser sécuriser gi loolu ci loolu ci la bokk kon daal ni nga ko waxee comme sëy moom euh, laata nga cee dugg muy góor muy jigéen wax nga ko xool seetaat ko balaa mu la indi jafe-jafe waaye itam boo demee ba dugg ci kon waa nga ko sécuriser. Mm-hmm. waaw fa tabaarakallaahu sécurisation bi lool loolu noonu la tëddee am na ci ñaan goo xam ne dañ koy defar buñ ko defee suuf soosu ñu la wax euh, trois bi googu moom lañ koy booleel buñ ko booleeg moom jox ko ku góor ki mu sangoo ko bu fekkoon ne bis bu set daana njaalaw bu xëyee daf koy bàyyi daf koy bàyyi automatiquement ndax njaalaw nattu la ndax da ngay ñàkk sa doole ñàkk sa alal romb fi lu dagan bàyyi ko fi dem ci lu xaram te ñun dañuy nekk ñoo xam ne nag yàlla moo ñu nattoo ñu nekk ay doomu aadama waaye ñu nekk ay responsable am cër ci diine ji war a jubal nit ñi li mag ñi daan def ba ñekk seen njaboot yi ba léegi tey jii la fi gën a nekk gëstu ko moo fi nekk ak wuti ko waaye mag ñi daanañu yar seen doom ba xëy ba mu xëy am fukki at ak juróom-ñett du ma sa mooy yàlla ba xëy takk soxna du ma sa mooy yàlla kon fa tabaarakallaahu li nga xam ne jigéen bu ko defee borom këram du ma a mooy yàlla ci ci biti loolu moo ngi fi te lu yomb la nag lu yomb la. loolu moom nekk na lu am solo waaye ci kaw tamit jigéen ñi doon ñoo xamante dañu ñu toog fa ñu war a toog di jëf la ñu war a jëf parce que léegi-léeg comme ni waxee yaa gis ñu dugg ci sëy dem ba ci biir muy góor muy jigéen nag comme ni nga waxee ci ànd bi neex lool bu ñu demee ba sëy rek ku ci nekk commencé def lu la neex xam nga loolu tamit day indi leneen mais ci kaw muy jigéen muy góor loo ko sécuriser sécuriser ku nekk def li nga war a def. waaw fa tabaarakallaahu muy góor muy jigéen kenn ku ci nekk da nga war a sécuriser gis nga sa soxna am mag ñi am nañ loo xam ne daanañ ko def ko dañ koy boole graisse signal graisse signal lañ koy boole. boo ko defee séq sa soxna soxna soos duutul mooy yàlla duutul duutul tëdd ak beneen góor te am na ñoo xam ne xam nañ ne seen soxna réglé wut te dama koy faral di wax doom yii nga xam ne ñoo fees dell ci mbedd yi nekk ay doom yoo xam ne mal formation am na ci doom yoo xam ne tabaarakallaahu ni ñu war a mel dëgg-dëgg meluñ ko dañu judd rek ñàkk xel am na lu koy waral am na lu koy waral ci biir néegu sëy bi la ndax am na ay xeetu wor yoo xam ne boo ko defee automatiquement yàlla daf lay sanctionné sanction go nag moom mooy daf lay teg loo xam ne yow da ngay da yëg ne lii kat yow yaa ko ji parce que boo déggee si sànq si sama biir sax bi ma waxee ba ni luñ ko sécuriser sécuriser jigéen gi def li mu war def yaay gis euh, comme sama mbokk jigéen ñi rek ñenn ñi daal da nga dégg léeg-léeg ni di ko wax te ñu mel ni yéen la ñuy seet ñu yenn sëriñ yi ñu dem di leen ñaanal yaay dégg ku ne defal xam nga defaral nañ ma si sama jëkkër loo xamante ne fii rek lay toog xam nga de sa fekk xam na ni jëkkër ji dootul dem fenn mais moom nag day tëdd di nelaw tegle ay tànkam li mu waroon def lépp da koy bàyyi nag ba nit ñi di laajte sax naan waa kii moom jëkkëram lu ko dal ak ak lu tax du ko wax dal waaw xam nga diggante boo gis dagan na nga ñaan ci yàlla ba diggante bi juboo am ci diggante boo gis dagan na nga ñaan ci yàlla ba xëy ñoom am ndam ci seen njaboot waaye ñaan yàlla pour lu noot sa jëkkër loolu mu siba la déedéet def ay pexe ba noot sa jëkkër bari na góor ñu bari ñoo ngi tëju la leen tëj nopp yu bari la du leen lu du lool parce que yow bu fekkee ne da ñaan yàlla sa sa sa jëkkër yem ci yow lu ne nga def ko ñaanoo ko mais da def ay pexe loo xam ne da nga ko def ci lekk mu lekk ko topp la donte am na ndax xam-xam jërul weddi xilmu kulli shay'in yenent bi moo wax xilmu kulli shay'in afdalu min jahliha xam bépp xeetu xam-xam moo gën nga di ko réere xam yooyu mag ñi ñoo ko fi doon def am na lu tax parce que imaginel koo xam ne moo ngi borom këram borom kër googu xëyut jox ko mu lekk gontul jox ko mu naan waxtu wu nekk muy gis mu di muy yëkkati alal ju bari di ko joxe di ko bazar ci mbedd mi kooku man Serigne Cheikh bu ñëwee ci man man dinaa def lu tax moom jër jëkkëram jooju njariñ loolu muy bazar ci mbedd mi mu del siwaat ci kaw euh, ci ci ci këram dundal njabootam ndax loolu ci la avantage am nekk bépp góor goo gis muy yëkkati alal di ko tasaare ci mbedd mi bàyyi soxnaam muy fanaane xiif njabootam ñuy fanaanee mar kooku mun mënta avancé te ku ko bëgg a dimbale faaw nga dimbale ko muy def ci li mu war a def ndax dañu wax ne ku deful ci àllarbay Muhammad da nga def ci talaatay Firawna da nga def ci talaatay Firawna ala kulli xaal yàlla tooñ benn doomu aadama léegi nag kooku nag dafa laaj ñu dimbale ko mais am na koo xam ne xam na ne situation baax na borom këram yor na ko yor bu rafet lam war a ñaan lu xam nga mooy lan mooy fexe faa sëy loo xam ne dana jur ku mel ni borom këram. loolu mooy loolu mooy ndamal jigéen mais ndamal jigéen nekkul ci rek ne damay damay yeew sama jëkkër dama koy noot mais boo ko yeewee noot ko ba mu yem ci biir kër gi duutul demati fenn duutul fas duutul tekki loolu musiba la su boobaa yow dañ la wax ne ku yokkut yow yaa wàññi su boobaa yow yaa wàññi. fa tabaarakallaahu soxna Fatima loolu moo ci loolu moo ci nekk te te liñ ciy jëfandikoo mooy baatin mooy léeg-léeg nit dana ñëw fen ñu sëriñ dañ koy fen ñëw ne ko sama sëriñ sa sama borom kër daf may noot daf may toroxal dafa may nangam foofu tam yéen a fa war a jël seen looloo tax nag xam-xam dëgg xam-xam dëgg nga fay jëfandikoo xam-xam ngay jëfandikoo foofu pour mën a xam kii kat ndax lii muy wax nii lu am la wala amut bàttin rek moo la ko mën a wax ndax yow li nga xam loolu nga mën a wax man ne li ma xam loolu laa mën a wax mais boo jëlee li nga xam boole ko li ma xam jébbal ko yàlla bu wàccaatee loolu mooy xam-xam. kon daal euh, sëñ Cheikh yow d'accord nga jigéen ñëw lu ci jëkkëram ba lu sécuriser sëyam et tout wala góor waaye àndoo tamit ak jigéen ñi nga xamante ne dañ koy def rek daal di toog yéen léeg-léeg jëkkër ji sax mooy indi añ beeg reer bi déedéet loolu moom musiba la te du ko digal kenn ndax lenn lu nekk da koy nat sa bopp du ko digal kenn man nanguwuma ko ma ko def góor ñu bari tey tabaarakallaahu war nañ del siwaat di bàyyi waat xel seen bopp waxtu wu nekk ñiy sangoo luy toj liggéey ndax réew mi dama koy faral di wax bari na ay gan bari na ay gan ñoo xam ne tabaarakallaahu gëmuñ ñun liñ gëm amuñu xaada yiñ am ñun ñun suñu aada moom mooy soxna bu xasee dugg ci néegu sëy mag ñi ñoo koy wax sëy xare la boo ci duréet joom jam nañ la kon war ngaa góorgóorlu ba li tax ñi jam la mu jar ko kon fa tabaarakallaahu bu ñuy wax ci euh, wàllu divorce moom mooy sëy yi bi ci des ci wàllu divorce yi nañ ci benn a génn kilifa yi ndax alquran moo wax ne xakaman min ahli yi waaye wa xakaman min ahliha sëy bu demee ba am rëng-rëng nañ ca bool nañ delloo ci siwaat ña nga xam ne ñoo doxoon wax ba sëy ba taxaw ñi delloo si leen ñu toog ñu waxtaanee sëy bi lu sëy lu tax sëy bi war a war a mën a wéy bu defaroo amee benn ñi ëlbatikuwaat yàqu-yàqu am defaroo am euh, yàqu yàqu-yàqu amaat bu neree ñett su boobaa nag fantasiroo li alquran di wax ne fa imshaakum bi maarufin waaye aw tasrihun bi ihsaan jàpp ko ci njekk wala nga bàyyi ko ci njekk waaye daal li ñu la mën a xamal moom mooy sëy moom dañ koy sécuriser sëy dañ koy aar sëy dañ koy ñàkk waaye li nga xam ne moo xew léegi am na loo xam ne man seen cheikh du ma ko digal kenn fa tabaarakallaahu li xew léegi li xew léegi moom mooy moom mooy li fi nekk rek moom mooy noot sa jëkkër noot euh, am na ñoo xam ne dañu noot dañuy noot soxna si soxna si def lu leen neex waaw fa tabaarakallaahu yooyu moo tax ñun duñ ci ànd ak kenn daal loolu waaw duñ ci ànd ak kenn léegi comme ni nga ko waxee rek sëy moom dañ ko war a sécuriser et tout ngir nga toog ci waaye itamit euh, def li nga xamante ne nag moom mooy bay sa waar ba mu mat waaye ginnaaw euh, loolu lépp mel na ni sëñ Cheikh am na yeneen mbir yoo xamante ne da koy jëgleel askan wi lu mel ni ci wàllu ci ay ñaan la daal ci ay ci yeneen mbir yu dul sëy itam waaw fa tabaarakallaahu li nga xam ne moom lañ ci teg mooy nit ñi danga war a aaru sa bopp ndax yàlla bi mu la wàccee jox la pouvoir nga mën a liggéey li ngay lekk liggéey li ngay naan noonu nga war a mën a taxawee ci lu luy sécuriser sa wàllu yaram rawatina wàllu baatin ba tax na fa tabaarakallaahu amoon na ay jaaro yoo xam ne jamono yëpp ñu koy laaj muy dee ko wàllu mag wàllu mag nekk loo xam ne lu ama am solo la ci képp koo xam ne yàlla def na nga nga nekk mag waaye nga nekk kilifa nekk di sëy wala nga nekk di tabaarakallaahu nekk di liggéey dana yombal sëy yu bari dana la musal ci seytaan dana la mësal ci lépp loo xam ne lu yàq la wala loo xam ne lu yàqal nit la dana la dimbale tabaarakallaahu bu dee bu dee bu dee bu dee wàllu ndaw bi dana dimbale ndaw li ci basasam ci bi muy xale ba keroog muy am fukki at ñett dana ko dimbale ci lu bari dana ko musal ci lépp loo xam ne wàllu seytaan comme li ñu fi doon wax léegi nga xam ne dangay ngay jur sa doom rek mu xëy xëy rek topp koo xam ne neexu la wala mu topp koo xam ne tabaarakallah waruñoo ànd seen jikko yi du benn wala ñu détourné ko loolu yëpp wàllu ndaw bu ko amee bañ accepté ko incha allahu taala buñ la ko joxee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam doom ji dana yëg ne moom mii kat am na lu ñu def ci moom yow it waxtu woo gisee sa doom da yëg ci moom it kontante goo xam ne ndax dana la wan jikko yoo xam ne dana dund ak yow jikko yoo xam ne yow fa tabaarakallaahu jikko yooyu nekk na jikko yoo xam ne moom lañ saluer moom lañ gërëm ndax euh, boo doy na ci ndam rek ëllëg ñu ne doom kee di dem kana la ñu ne doomu diw la doomu diw la nag nay fekk diw def ko ci moom dama koy faral di wax woy jur yi nañ delloosiwaat xel yi coono yi nga xam ne moom la suñu kilifa yi def ci ñoom ba tax ñoom ñi mel niñ mel nañ ko jéem a def ci njaboot yi nañ ko jéem a def ci njaboot yi doy na sëkk yafal gi doy na sëkk yafal gi waaye nañ yar waaye nañ ko teg ci yoon doy na sëkk yafal gi yafal mooy di dundal rek di xëyee ko gont sa doom mënoo am ak moom deux heures de temps yoo xam ne ci biir semaine bi yéen a toog loolu nag place moom bu viddee rek am ku ko toogee kon fa tabaarakallaahu lépp loo xam ne luy aar ndaw la yàlla dana la ci dimbale bu dee mag mi nga xam ne takk na ko yàlla dana ko dimbale ci moo xam day tukki wala moo xam day commerce wala moo xam tabaarakallaahu day ubbi ay projet surtout yooyu daf la ciy dimbale dafa lay orienté ndax li dal sax li li ngay bëgg a def rek moom automatiquement day def ci sa xel li nga xam ne li gën bu dellu sa xel sa fit du dal kon fa tabaarakallaahu mbiram baatin la duñ ci xuus lu bari waaye daal nekk na loo xam ne ku ko yeewee rek moo koy am li ma koy faral di waxee bari na ñoo xam ne amee nañ lu jul jeex waaye mënuñ cee jot ndax ndigal la fa mi bàyyi ko ñoom ñoo xam la tax kon fa tabaarakallaahu mbir moomu loolu lañ ciy wax dëgg la am na solo macha allah sëñ Cheikh kon euh, temps bi mel ne ni jeex na ma bàyyi la rek nga tàggatoo wax sa kàddu gu mujj. waaw alhamdulilah kàddu gu mujj gi du def lu dul sant yàlla gërëm ko ñaan ci mbaaxu yàlla euh, yàlla na yàlla doole ñu tawféex ba sa yëpp yàlla na yàlla na ko yàlla dëgëral ndax ànd ci yàlla dafa neex seytaane day jël mbiram boppam neexal ko ba mu neex nga am sa soxna bàyyi ko fa dem nekk ci keneen nekk ci leneen loolu. seytaan daf koy neexal mooy delloosiwaat suñu mbokk góor ñi nañ bàyyi waat xel responsabilité yi nga xam ne moom la yàlla gàll seen loos jigéen daal ku ko yor da nga ko dundal da nga ko wodd da nga ko dëkkal da nga ko dëkkoo loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am solo même bu amoon milliard moom ku jigéen ki yow la ko yàlla sas te ni tuyaaba ji nekk ci dundal doomu aadama kenn xamu nu toll. te jigéen ñu bari tabaarakallaahu ñoo ngi sonn ci seen biir néegu sëy ñoo ngi toskare ci seen biir biir néegu sëy te li leen li leen ko teg lu dul ay ay góor rek fa tabaarakallaahu jigéen ñi nag loo leen di wax waa jigéen ñi li ñu leen wax moom mooy ñu góorgóorlu sëy góorlu ci sëy góorgóorlu it xam ne nekkul lu yomb lépp lu am fii rek fekkoon na yàlla dagan euh, dogal ko démb kon bu bu la yàlla tànnalee mën ngaa génn ak ma sàmba génn ak ma demba waaye bu sëy jotee ki nga war a sëy rek ngay sëyal kon fa tabaarakallaahu bu la ko yàlla dénkee góorlu nga fexe ko sécuriser aar ko ngir ëllëg li fay luy ndam bu yegsee nga mën a siggi ci say kanami bokk kon di wax rek wa ma zalika ala llahi bi aziz wasalaamu aleykum wa ta taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu niñ koy waxee saa su nekk rek euh, waxtaan bi amatina solo sax laay wax macha allah mi rek euh, Serigne Cheikh euh, Ahmed Tidiane Sarr di ko jaajëfal bu baax a baax nag ci temps bi nga xamante ne saa su nekk rek mi ngi ñu koy accordel di ko jaajëfal bu baax itam ci kàddu yi mu fiy génnee yéen i tamit mbokk yi internet informé point com ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu niñ koy defee saa su ne ci seen site bi ngeen tàmmul seen bopp di www point informé point com di leen jaajëfal bu baax di leen dig daje ci. beneen jotaay ak beneen waxtaan ja ngeen jëf